war ngeen jàng aaya bi ba mën koo tari seet leen maa ngi gis asamaan yi ubbiku te doom nit kaa ngi taxaw ci ndeyjooru yàlla jëf ya saar juróom ñaar aaya juróom fukk ak juróom benn beneen yoon dañu waxtaan ci mbirum waareb filip ci xabaar bu baax bi